neex du doy macha allah Seyna Ali dañuy ñëw ak yow rek balaa Aboubacar di tàggoo ak ki nga xam ne moom moo di Baye Mbaye ñu jotaay bi incha allah ñu ñëw bëgg rek nga ñëwal ñu si lu gàtt rek si fond Medina Baye ndax itam faw ñu waxtaane ko ndax ñu xam pays bi jaamu yàlla te ku ne xam ne ne dafa bokk si jaamu yàlla dégg nañ tool bàyyi fa tabarakallahu macha allah ak taxawaay bu mucc ayib bi nga xam ne umma am ko si muy le médiateur. te itam Mawlana Cheikh Ibrahima radiallahu anhu mooy solution kon weranteetu ko ndax nee naa azamaat yi nga xamante ni moo jaaxaloon Afrique yëpp fa tabarakallahu xaadimul umma dem na lijjanti ko ñëwaat toog ci discrétion ba nga xamante ni lu Nations Unies jëm télé Union africaine jëm télé euh, ñu nekk jëm télé moom mu ñëw dugal si loxoom yàlla defal ko si barke ba tey mu am ci ndam loo xamante ni àddina yëpp fa tabarakallahu macha allah teg nañ ci seen bët fóot Medina Baye lu tax ñu amal ko lu tax ñu créer ko ak lan mooy taxawaayam. waaw Oustaz Assane fond Médina Baye. mbir la moo xamante ni daanaka alxalifa almarhum Mawlaaya Cheikh Ahmed Tidiane Cheikh Ibrahim. radiyallahu anhu. du ñu wax ne moom moo ko sos mais da koo dekkalaat. fond Médina Baye Mawlaana Cheikh al Islam Haaj Ibrahim moom mooy ki ko créé. mi ngi ko créé 1972. tuddee woon ko sunduuq li tamwiilil machaari mhm. fonds pour la réalisation des projets noonu la ko Mawlana Cheikh Lislam Haaj Ibrahim tuddee woon mhm. euh, loolu mi ngi ko créé woon gannaaw bu créé au lendemain des indépendances en 1960 mhm. nga xam ne na ci association yu njëkk am récépissé ci Sénégal macha allah parce qu'Ansaruddin ñi am seen récépissé 1960 ak mi amé indépendance mi ñu indépendance macha allah ciy gannaaw loolu mu taxawal ittihaad islami afriqi mais gannaaw bu mu taxawalee ansaaru taxaw ko taxawal ko ci ay objectif tabaxal juma tabax ay école tabax ay fajuwaay tabax ay jàngukaay yooyu yëpp xaalis mooy moo koy def ci la créé nag sunduq li tamwilil mashaari fonds pour la réalisation des projets macha allah fonds boobu moom moo ko taxa taxawal boppam wax ne taalibe bu nekk na ci jënd carte bu téeméer jamono jooju carte yi Mawlana Cheikh al mi ngi ko doon jaayee cinq francs ci jamono jooju الشيخ آه، محمد الماحي الشيخ سيد علي سيسي ميغا خامني موم الخليفه الشيخ احمد تيجاني الخليفه المرحوم ميغا واخني مو ديكالات فون بي موم لا مانداتي وون نيتالي نانيو ني سيد علي سيسي توكي ني ات بو خامتاني ميغي وور تي توري فون بوب نون بور لو تاخوالي بروجي ميد نباي تا بن جيتو تي نيغاب يالا بي ما شاء الله مولانا الشيخ الاسلام حاج ابراهيم رضي الله عنه دا دان ديف ات مو جوت سوخلام يكو غنا ايتيل دا دان بيني تي نيل بينك ات بي lu melni bataxal bo xamne boromam la koy bind ilahi li dan commencé wax ko ne ko li la soxla li la soxla li la soxla amna ben lettre da ci wax yàlla ne ko mimma ahammani ya mawlaya fi hadha al am li ma gën yow sama borom ci at bi moy madrasatun li tahfiz al quran li tahfiz awlad al quran wa awlad al ahbab ma sha allah ne ko lima gëna gën moy tabax dara jo xamne dama ci jàngal sama domi al-quran ak sama domi yi ma sha allah ak tapat sama jumaaji ak ak ak soxla yu bari dama ne comme ni ko doon waxe way soxla yu dama ne lu ko meunona taxawal moy fond bu ko taxawal moy alal. motax mu créer fond bobu non ci at bobu non macha allah gannaawam nag xalifaam Seydi Ali Cissé taxaw na ci taxaway yu am solo. gannaawam xalifaam Cheikh El Hadj Abdoulaye. 1997 mu taxaw ci pour ñu jëm ko def fondation mais antuwut. seen xalifaam itam seigne mam Cheikh Ahmadou. ñëw 2006. Euh, ñu def ci ay études mais ci jamono Cheikh Ahmed Tijani yi ci lañ ko soog a taxawal def ko benn entité mu nekk comme genre fondation mhm. ñu tuddee ko Fonds Medina Baye nga xamante ni li ko tax a jóg mhm. mooy projet xadra bi mhm. te benn jiitu ci jàngukaay bi ak jaamukaay yàlla bi nga xam ne réalisation bu fond bi ñëk def. moy tabax ben air plus de fi ci maad al Hadj abdallah macha nga xamne Baye mi ngi ko dippé Baayam El Hadj abdallah kër bu mu koy inaugurer daf ne tuddé wumako son Baye ngir no son Baye comme li ma la wax. waxtu bu nekk day dakk lolu waaye dama ko tuddé ngir ne école am bi mo mag tay bañ moderniser ko. dama ma bokkon élève yi nga xamne ci école bobu lañ doon jàng. ba école bi xëy gee melni motax ma dippé ko ko. delloo mbattu ca Ndaala ñu tabax fa ben air plus de bo xamne ni. macha allah ci valeur 75 millions jëm kaw. gannaaw lolu jumaaji ne ko imam Cheikh wax ci publicité bi deew daw ñëpp di ko set mm-hmm. fond bi taxaw na ci ci wàllu seddal ko climatiseur yi nga fi gis yëpp fond bi moo ko def mm-hmm. euh, bibliothèque yi Cheikh al Islam bi ñu jàkkaarloo mm-hmm. nga xam ne mi ngi ci dara des ci lu may peinture ko fond bi taxaw ko ci valeur yi cent et quelques millions di def ci social yoo xamante ni lépp loo xamante ni bu fi Mawlana Cheikh radiyallahu nekkoon moo ko doon def ci loxoom mhm. di taxaw ci gàmm gi ci luy organiser gàmm gi mhm. di teral surafaaw yi gën a yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñi fi ñëw deretu xatmu tijaan yi dalar leen teral leen wàcce leen seen i wàccuwaay bokk na ci nga xamante ni fond bi ñu koy def أجنان أجنان يو خمنتني جسنا نتام بخدنا من لي قد ما لي جسني لي دفسين أيون ودال بروح لتي قتل ما شاء الله مولانا شيخ الإسلام ما كنت أحاول تديك أو تالي لب لو خمنتني بقنا مباح في مدينة دو أي جنة مو ينو دينيو كده فرال ولا أي ملاك دو دنش خار إتابي بنيو كده فرال دفنيو كوارا دفل نخ دما نك إمام دبي لف بين كلمة بمنيح سين بوربي بقي سين دبي نو دفلا بدفنا نجت baatu mustaxil warta bokk ci dictionnaire am. dëgg la impossible mënul nag. waaw warta warta bokk ci dictionnaire am dafa war a jéem te li fi war a baax li koy baaxal mooy ñun ñi nga xam ne ñoo aju ci pays bi kon buñ góorgóorloo ba dooleel fond boobu noonu nga xamante ni bàyyi moo ko créé moo ci oon ñi dégg nañ discours bu ci xalifa bi def bu ci imam def porte bi def ak néeg baay bi nga xam ne bañ koy rénové waat di ko beesalaat yëpp loolu yëpp fond bi moo ko taxawee yooyu rek war na mën a tax ñëpp ñu taxaw ci liñ bëgg ci suñ bi ñu defal ko suñ bopp mhm. bu ko defee leneen lu ñëw ku ñëw rek fekk ñu ci. balaa ñuy tàggatoo fond bi ku si bëgg jàpp nooy def. fond bi ku ci bëgg a jàpp bëri na ay moyens. Mhm. bu ci jiitu am nañ ay compte bancaire yoo xamante ni banque islamique UBA. Mhm. Euh, BOA Bank of Africa. Mhm. waaye li gën a yomb ci jamono ji nga xam ne mooy mbiru téléphone yi. am nañ ci quatre cent quatre vingt et un mooy numéro Wave bi mooy numéro Orange Money bi. am na Free Money. Euh, am itam mm, code marchand 24 04 84 pour képp koo xamante ni yaa ngi ko a envoyé ci si code bi 24 04 84 numéro orange money bi ak web yëpp mooy 481 77 04 04 képp koo xamante ni bëgg nga ci participer te képp koo xamante ni participer nga ci lum néew néew na la leer ne lépp luy projet xadara bi sa xaalis dem na ci ndax fond bi benn levier boo xamante ni pour financer mboolem. بروجي حضرتي اكتيفيتي حضرتي واحنا على الجماجي واحنا على معهد بي واحنا على جامجي واحنا على غني واحنا على واحنا على واحنا على ak yeneen yoo xamante ni sax ma sha Allah ci wàllu social ak ci wàllu taxawu xadara bi yoo xamante ni maanaam sutura mayewul sax ñu tudd ma sha Allah am na solo sa kàddu gu mujj la lay doon Cheikh Cheikh Ali dellu di sant yàlla beneen yoon di gërëm GFM groupe Futurs Médias seen taxawaay ma sha Allah ci at mu jot ci tasaare jàngale Mawlana Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu waaye itam wane seen ba ci yoon ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye itam beesal kóllëre bi nga xamante ni euh, kilifa gu mag yi Youssou mi ngi koy def nga xam ne kóllëre woon noonu ak suñ maam Cheikh Mahamad Mounzir mhm. doomi Mawlana Cheikh l'Islam sama nijaay Serigne Aliou nekkoon na Paris daf may wax waxtu bu nekk ne da daan tooñ sama maam waxtu bu ñëwaan Paris di jënd ay costume yi cher boo waxee mu ne Youssou Ndour la koy jëndal ba mu génnee àddina sax ñëw na fii Youssou ñu gaa jaale si sama kër maam fii la fanaan fii botayaan fii archive yi mu tax te du duwut ne fii rek la koy def événement religieux yi xew yëpp mi ngi koy def waaye itam gërëm ñi nga xamante ni ñoo ñoom it ñoo bàyyi seen ite yëpp ko di ko jaaree sa tur nga jottali ko ñëpp waaye itam di gërëm suñu nijaay Cheikh Abdallah yi nga xam ne ñu ngi ko tuddee itam suñu maam Cheikh Alhaaj Abdallah Cheikh Mouhamadul Muntaqa moom it ci taxawaayam nga xam bi dénk nañ ko mm-hmm. waaye itam ñu ciy def mu jot njëkk yombalal yi